ñu ngi lay nuyu. naa la. Euh, di la nuyu bu baax. di nuyu mbokku internetu Sénégal euh, set yëpp. fii ci Sénégal mais également rawatina dans le monde entier. donc nuyu sama xarit di ma am fii Sénégal set bu baax. ñoom sëñ Jibi ñoom Penda ñoom ñëpp. donc di am yaakaar ne dinañ fi def euh, émission boo xam ne Sénégal dinañ ci mën njëriñu. nga nekk. benn ci révélation quatorzième législature bi assemblée nationale la sénégalais yi ràññee quatorzième législature bu juloon coow lu bëree bëri gis nañ fa ay dóoranteeg mais aussi assemblée bi nga xam ne ni coude à moo fa amoon nag yi demee noonu ban bilan boo doon tirer bilan très brièvement ban bilan ngay tirer ci quatorzième législature bu ñu génn. <laughs> bon révélation c'est pas trop dire je pense <laughs> partition. Mm ci vraiment lépp li nga xam ne. Mhm. Euh, député war na ko am taxawaay ci biir assemblée nationale. Mhm. donc foo t il tamit ñu redéfinir le rôle. Mhm. Euh, la mission même. di député. Euh, député booy seet euh, c'est la voix du peuple. donc nga dem nag vers l'hémicycle foofu nga xam ne nag wax dëgg yàlla c'est la caisse de résonance de la démocratie. de tout pays. donc ci quatorzième législature boobu la ñu dem ci nag benn contexte. contexte bu doy waar nekkoon euh, mu amoon ay élection législative euh, mu jaxasoo. Mm-hmm. liste titulaire bu yeewu askan bi. Mm-hmm. éliminer ko. ñun on était sur la liste de suppléants. Mm-hmm. donc on s'y s'attendait pas comme ça ñu jékki-jékki rek ñu ne ñun ñu def ñu au de de la scène comme ça. Euh, c'était pas évident du tout. donc man je sortais. à la dix-septième position man maa fermé liste bi nga xam ne. Hmm. ci liste nationale bi li ñu amoon man maa fermé liste boobu man maa ñëw en dix-septième position. Hmm. c'était des faits marquants donc il fallait nag représenter dignement le peuple. Hmm. dignement selon un contexte politique nag bien défini. Euh, li xew assemblée nationale mooy xewoon ci biti. bon je pense que en tant que représentant du peuple lu mel noonu. xëccoo xiiroo ngaa yow mënu woo ñàkk. parce que d'or aussi il y avait deux entités. qui donc. pour restaurer la démocratie. Mhm. surtout parce que mënuñu am démocratie boo xam ne ñu euh, des ancêtres ñu loolu légué mhm. ci ay anam yu wóor ku ne xam ne ne Macky Sall il a été très bien élu pendant ce temps ñu gis ne ne am na loo xam ne mu ngi nekk di yàqu. il fa que ay sénégalais tam taxaw ne lii duñ ko bàyyi noonu mu jàll. Mhm. donc euh, ñu dund lu inédit nit taxaw rek ne man ku ma neex. mooy candidaté ku ma neex mooy bokk ku ma neexul du bokk nii laa koy defee te force nii laa koy defee mhm. il a fallu que nag ñeneen ñu nga xam ne tamit ay sénégalais leen souche dëkk ci réew mi yaroo ci réew mi am fi ay droit am fi ay devoir mhm. taxaw temm ne loolu du fi am contexte boobu moom moo amoon mhm. donc ñun on était dans l'opposition et on était dans le pastef ñu am benn ligne politique bu bu boo xam ne bon en fait euh, dañ ko ñëw indi ko au-delà de la politique classique ñun on se veut patriotique mm-hmm. euh, travailler aussi dans l'éthique mm-hmm. et on avait lancé un appel à tous les sénégalais patriotes xam nga ku ñu ñëw ñu def politique bi d'une d'une autre manière mm-hmm. ah ñu noon ah ñi des réseaux sociaux yi rek lañu am ñii de xale rek lañ ba tey yàlla def nag mu dem ba mu yàgg sénégalais yi dégguñu ah loolu la euh, président président Macky Sall ak ngàngooram loolu lañ mënu woon nangu loolu nag moo reflété wu biir assemblée nationale bu ngeen seetloo ñoom ci jalgati ay loi lañ nekkoon donc on peut pas pas comprendre nga nekk assemblée nationale xam ne foofu la ñuy voter les lois nous loolu notre euh, premier rôle c'était de voter des lois de de contrôler l'action du gouvernement et de l'évaluer aussi mm-hmm. euh, que ñi gis ñi tripatouiller wala di jalgati loi mm-hmm. ci biir assemblée nationale mm-hmm. d'abord l'installation du président de l'assemblée nationale ku ne xam ne ne ni ñu ko installé ñun d'accord uñ ci ci mode scrutin bi mais ils nous ont forcé la Euh, pour la première fois dans l'histoire politique ou bien la deuxième fois depuis 1962. ci moom du jëlee ginnaaw lañu ngi joon na gis te dugguñu woon sax ba ci biir hémicycle bi ñu gis vraiment l'armée ñu dugal ko biir assemblée nationale ñu bàyyi nii di dóor ñii bàyyi yenn sénégalais yi di yeneen sénégalais yi donc loolu c'est révoltant aussi donc loolu ñun noonu lañ dundee assemblée nationale bi il falee sa baat pour restaurer vraiment la démocratie il fallait se battre pour restaurer l'état de droit loolu nag jaraloon nañu parce que c'était pas pour nous mais pour la postérité pour l'avenir de nos enfants ñun dañoo bëgg bokk ci Sénégal boo xam ne wala bokk ci démocratie boo xam ne kenn du jalgati loi yi nga xam ne dañ ko voté et in fine qu'est-ce qui s'est passé il a fallu rétablir l'ordre bañ demee ba ci coppaandoo ga ci ay loi lañ ko teg parce que le président Bassirou Diomaye Faye a été clair euh, l'ordre euh, l'ordre politique du supplanter mukk l'ordre légal donc ñun ba ñu ñëwee jël jël jël yàlla dimbale ñu sénégal yi dégguñu. Mhm. voté ñu à 54 virgule 28 pour cent seetlu nga lépp lépp teguwaat na ci yoon. Euh, gis nañ ñu ne leen dem leen defar réglement intérieur bi nga xam ne dañ ko falsifié woon. Mhm. ah les les les les députés et les groupes wax dëgg yàlla dañoo dem defar ko ba mu jekk. Mhm. et il a on a même profité pour ne dañuy daaneel gouvernement bi mais. loi teg wàccoon kaw parce que constitution moom moo ëpp doole les lois organiques donc euh, il a fallu que président de la république rétablir pour rétablir l'ordre dissoudre l'assemblée nationale xëy na mënoo fi nekk di ko wax yëpp lu ñu fa dund dund nañ fa lu bëri ñun aussi on s'est battu pour être de vrais députés des députés yoo xam ne dañuy def ay question écrites ay questions orales ay résolution ay proposition de loi yëpp yëpp yëpp yëpp le groupe parlementaire yeewu askan bi def nañ ko. man rek rek rek rek bu ma doon man li ma def mot na cinquante yoo xam ne def naa ci ay questions écrites. waxatuma la nag sama yeneen collègue yi nga yaakoon yeewu askan bi donc xëy na il faudra que mu am émission spéciale sur lan lañ taxaw woon au niveau de la quatorzième législature pour nga mën a comprendre ban taxawaay amoon et si ba ma delloo aussi tamit j'ai vu je suis sorti de la liste nationale certes mhm. et je fallait il fallait représenter tous les Sénégalais mais aussi tamit je suis issu d'un département le département de Guinguinéo mhm. porté naa leen comme il su doit waxal naa leen euh, euh, te ñoom ci seen bopp su ma delloowaatee ba ma delloo biir Guinguinéo wax dëgg yàlla ñoom ñëpp dañ ne ma ah ñun pour la première fois dans l'histoire de Guinguinéo ñu gis député boo xam ne day taxaw di marteler le nom de Guinguinéo loolu tamit juste man pour man satisfaction bu rëy rëy laa ci am fierté laa ci am mhm. tey jii mun naa wax ne suba su ma doon bindu sama mémoire une grande partie concernant la quatorzième législature parce que man tey sama histoire politique mhm. au delà ma nekk coordinateur départemental à Guinguinéo je sais que amee lu ma mën a nettali même deux ans rek la mais yaay j'ai beaucoup de choses à dire au niveau de l'Assemblée nationale am ci yoo xam ne sax sañu ñu ko waat fii mais wax dëgg yàlla dund nañ fa lu ne waaw parce que ci gàttal daal bon en tout cas on est satisfait les Sénégalais sont satisfaits de nu moo tax ñu voté ñu à 54 virgule 28 pour parce que y avait une majorité certes euh, mais y la là-bas également une minorité qui se battait pour faire comprendre au Sénégalais Sénégal bi nii lañ Sénégal nii lañ ko war a téye waaye du nii ñi nga xam ne chaque fois c'est pour euh, leurs intérêts crypto personnels wala ci li nga xam ne du jëmale kanam euh, vraiment euh, askanu Sénégal. Mhm. ñu jëm kon ci quinzième législature nga doonoon député xam assemblée nationale et tout tey assemblée nationale yan rupture la soxla effectivement tey boo leen amee majorité. des ruptures profondes ah des ruptures profondes à savoir. Euh, redorer le blason de l'Assemblée l'Assemblée nationale cette mhm. institution qui mhm. qui n'est pas des moindres mhm. sur les trois pouvoirs donc rétablir l'ordre établi sur la collaboration entre euh, euh, euh, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif nga xam ne tey jii pouvoir judiciaire da leen di seex pour créer l'équilibre donc loolu moom c'est un vœu pieux du président de de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye parce que il l'a inscrit même dans dans dans dans dans son programme dans le livre projet que ne lu muy war a njëkk a def mooy créer ay réformes yoo xam ne dañuy delluwaat euh, euh, assemblée nationale tolluwaay bi mu amoon mu nekk ay député yoo xam ne dañuy xam ne ne séparation des pouvoirs moo leen fi teg mu nekk ay député yoo xam ne askan bi moom moo leen di fi teg en tout cas Euh, euh, ci quinzième législature bi li ñuy xaar mooy lépp lu nga xam ne assemblée war war na ko woddoo mu woddoo ko pour la bonne marché du pays sa à dire nangu jox président doole gi yëpp mais doole yi day témboo bu ko defee loolu mu nekk njëriñu askan bi en tout cas quinzième législature bu responsable lay xaar quinzième législature boo xam ne les députés seront connaîtront leur mission et seront et feront dinañ def seen liggéey euh, comme ni nga xam ne daal ñoom loolu lañu ko war a defee ak askan bi lu muy xaar ci ñoom donc ñun on avait déjà commencé sur la quatorzième législature tey jii suñ ma suñ ma delee ñu dellowaat ma ne dama dañoo bëgg ma delluwaat à l'Assemblée nationale te loolu du parti bi moo ko njëkk wax peuple sénégalais moom moo ko njëkk a wax waa Guinguinéo ñoom ñoo ko wax ba tey jii ñu def ma tête de liste départementale au niveau euh, du département de Guinguinéo je pense que c'est pour que li ma tàmbale woon ci quatorzième législative bi ma yeggale ko ci quinzième législative bi en tout cas attendez-vous à une une quinzième législative boo xam ne yëfu yaa ma neex du fa am Euh, du ñu du doon quinze quinzième législature boo xam ne. dañ naan non formation bi moom fi indi donc formation boobu rek lay taxawal. député président. donc dootul nekk député président. mais mm-hmm. député vraiment di peuple digne de son nom yi nga xam ne bu ñuy rivaliser d'ardeur dañuy rivaliser d'ardeur à à apporter les préoccupations et les manquements yi nga xam ne. am na pour que pour faire améliorer vraiment l'exécutif. Mm-hmm. en tout cas ce sera. de manière responsable incha allahu dañ koy defee. Mm-hmm. ñu investir la ca new yaa ngi koy wax sànq mais Guinguinéo ce sera très disputé même bu dee yaa gagné woon ca présidentielle yi avec euh, yaakaar naa jiitoo gars yi 3000 voix bu ma juumal. mais bii aussi tamit euh, du yomb de. ak les les les Pape Malick Ndour. les mm-hmm. Souleymane Ndéné et cetera. Mm-hmm. Mm-hmm. bon rien n'est rien n'est rien n'est facile dans la vie ah. ñun on a toujours connu la difficulté aussi dans le PASTEF donc musta yomb si ñun. donc euh, nous avions commencé vers les années deux mille dix sept jëm deux mille dix huit. Euh, lañ wàcc Guinguinéo Euh, bu ñu doon dox ci mbedd bi ñaar la ñuy doon ñett la ñuy doon. Mhm. suñ doon réunion des fois cinq personnes lay doon. je me rappelle sax sama benn grand <laughs> ndeysaan préfet Diouf maa koy euh, saa yu ñu gisee mu ne waaye yéen yéen ñeent lan ngeen mën a apporter mhm. vraiment lan ban changement ngeen mën a apporter le département Guinguinéo. Mhm. Euh, donc ça a été comme ça donc kon lépp loo xam ne tey jii lu ne suñu kanam la dara mun cee jaaxal. donc je respecte les adversaires c'est des adversaires de taille. donc il faudra se battre. il faut faudra savoir convaincre les les, les la population de Guinguinéo euh, mais il faudra il faut il faudra mettre quelque part un bilan man j'ai un bilan boo xam ne moom laay présenté waa Guinguinéo te loolu moom moo ci gën a neex donc normalement man su ma waree dellu soit à l'Assemblée nationale man sama bilan bi ma def assemblée quatorzième législature moo ma war a fal ci sama quinzième législature te am naa yaakaar ne sénégalais am nañ kii waa Guinguinéo am nañ ci satisfaction le reste dañ leen di woo faut pas dire que aussi euh, là c'est des pour que ñu créer représentativité mhm. au niveau de l'Assemblée nationale c'est au-delà sax même des partis c'est en tout cas c'est le département de Guinguinéo en tant que tel qui va choisir son représentant au niveau de l'Assemblée nationale kon su may woo waa Guinguinéo dama leen di woo ñu xalaatee noonu mhm. kan ngeen bëgg nga xam ne du du seet formation politique du seet leneen lu muy gis mooy département bi lu ko jëmale kanam kooku ngeen di fal kon waa Guinguinéo ci loolu laa leen woo ñu xalaatee noonu nañu indi koo xam ne à l'Assemblée nationale Guinguinéo jëmale kanam Guinguinéo rek moo koy ñor fexe ba doomu Guinguinéo gis seen bopp ci lépp nga xam ne nguur gi moom koy mettre en place ci ay projet loolu moom mooy war a nekk combat bi loolu moo war a nekk vraiment programme bi nga xam ne tey jii war naa ko teg devant waa devant waa Guinguinéo mm, li ci des nag bon dañ koy bàyyi ci loxo yàlla ndax loo gis rek yàlla la Euh, man ba may tàmbale politique xalaat ma woon dinaa yegg si ci station bi. Mhm. lu am rek yàlla moom moo fi teg. Euh, mais également aussi tamit formation politique bi aussi tamit nuñ ko tëggee. Mhm. xëy na ñoom noonu la ko sénégalais yi gisee ba di ñu jox di ñu jox euh, confiance. Mhm. ba di ñu dénk yenn responsabilité te yaakaar naa ne aussi tamit ci. élection yi tamit incha allah ak yaa ngi new noonu lay demee soobee yàlla. ñu jëm ci élection législative yooyu mais lu bëri di xew. ci diggante bi mm-hmm. bu ci njëkk mën nañ ko wax mooy recours bi nga xam ne ni dañ ko jëmalee ci Ousmane Sonko seen tête de mm-hmm. ci euh, jugement par contumace buñ ko jugé woon